حبيبي قريب هل سقامي تسمع يقابل dee nag suñu borom nee na dafay ñëw ci fekk rek lay ñëw laa yaati illa baxtatan mu wax nag al mawtu kasu nadami bokkul nag si tasrabuha faman sariba insan yow na yan dim لما لم يكن حريصا عليه وإن كان يفعل السريات من حيث لا ينفع الندم nee na te kooku wéccu la kooku la boo xam ne ñun ñëpp dinañ ci naan mu nekk nag dëgg dina ñëw naan ci kooku boobu nee na wéccu bi nag dina am am na wéccu boo xam ne wéccu positif la ak boo xam ne négatif la na li ngay ñaar yëpp di nga wéccu bu baax a baax bu dee lu baax sax nga def ndax na soo defee lu baax suñu borom fay la te yàlla ñu suñu borom fay bu la fayee da ngay lu tax gën ma ba lii moom fay gën a yokk boobu mooy rëcc bu rëcc boobu rëcc bu baax la yàlla suñu borom du ko safaan ba nag ku ko def suñu borom moom moo xam sa diggante ak moom kon nag ci gàttal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni balligu anni walaw aaya jotalal leen ma donte la benn aaya la na ngeen ko na ngeen na ko def ngeen wax ak mi ñi ci loo xam ni wax na ko di wax nañu wa zakir fa inna zikra tanfa'ul de nañu fàttalikunte ndax fàttaliku dina njëriñ ki nga xam ni moo di way jullit bi tey daal ñu ngi ba si tiis waaye nañu xam ne tiis boo xam ne am nañ ci yaakaar mbégte boo xam ne suñu borom dina ko defal way dawlu bi ñu mu xam ne Fadel Gueye leen bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salaatu wa salaamu ala rasulillah sayyidil awwalin wa sayyidil akhirin nee na ñu ngi gërëm ñëpp di leen ñaanal jàmm dafay wax ni ci ñu ngay jàng sànq al almeeri tuuti yaasin ne dina am ñoo xam ni suñu borom dina leen teral yàlla na ci fagal bopp ndax dafay wax ni xaala yaa ka qawmi yaalamuun bimaa xafara li rabbi wa jaalani wa jaalani mu al mukramin nee na ak a neexoon sama njaboot bi ma bàyyi ñu ngi tiit di mettitlu li nga xam ne suñu borom def na ko muy dogal bi mu dawal si man ma génn àddina waaye yàlla naa dajee yërmande suñu borom te yaakaar nañu mi ngi dajeek moom ndax ñaanal nañ ko lu ñu mën ñaan suñu borom ñu boole ci way ñi nga xam ni daf leen di teral mu ne bàyyi ko bàyyi ko sëriñ ndax moom nga gën a xam ndax moo gën a yàgg moom ndax ñu ay doomu yongo yeeg ñoom ñëpp ñoom ñëpp kër sëriñ lañ daan dem di liggéey kon moom bokk na ci nga xam ni comme amoon na métier nga xam ne ñu jàppale tey bi ci jamono ji ñu dund kon loolu nga xam ni loolu nekkee woon na ko mu sàkku ñaan ne nañu dem yàlla mooy maye nag yàlla mooy maye suñu borom mooy maye waaye wax na ma ni soxla na ñaan waaye bëggul takk téere bëggul def dara foog daal ko ñaanal rek la bëgg kon daf ma junj pour ma war a dem ànd fa moom ak ak ak ak junj bii def naa amee nii la ci ci ci taxawaay boobu nga xam ne amoon nañ ko bu baax a baax bañ demee ci moom sàll na la ko suñu borom ñaanal ko am na moom moom lu mu waxoon ndax am na benn bi manqué woon ci sa laaj tey jii am na ñaar at ak benn li may wax nii bi ma ko laajee kan lañ fa àndoon dafa ne 2003 kon ñaanu waajur boobu mu wax loolu laxasu la ci biir loo xam ni bu ci ko génne comme tey jii bés la boo xam ni waajuram boo ci génne àddina mu amoon yéene ci moom mu yebal ma indirectement suñu borom def ñu def mu nangu dogal boobu nga xam ne dogal na ko bu ñu déggee ñi nga xam ne tey ñoo nekk waa fédération ñu leen di gërëm tamit seen kóllëre bi ngeen am ñëw gunge waajuram ci bésam bii nga xam ne bésu tiis la kon nag moom ak ay magam ak ay rakkam yëpp ñun ñoo yàlla suñu borom moo dogal ñu bokk fi ñu dëkk suñu fanee nekk suñu mag suñu suñu xarit kon dañ koy ñaanal ñu ngi daan àndandoo ñëpp sang bi nga xam ne mi ngi nii ñu koy présenté Cambérène nekkoon ak moom ñëw na ànd ak waa Cambérène tey jii def naa ñoom ñëpp yongo mi moo tax ñun ñëpp ñu ngi ñu ngi ñu Cambérène boobu tax xam naa moom li may wax moom a man kon dañ koy ñaanal moom tamit ak njabóot bi yëpp. daal ki nga xam ni moo di fadal suñu borom nag bu dogalee kenn mu ci dara laa yukallifu llaahu nafsan illaa wus'ahaa lu ñuy def rek suñu borom moom moo ko moom moo ko dogal ci li nga xam ne moo am taxawaay xam naa ba ñu demee almeer yëkkati nañu kàddu peut-être bokkuñu sa moo tax ñëpp daje wuñu ñu ngi ñaanal ki nga xam ne moo fi jóge yàlla ko yàlla xare àjjal yàlla buñ ko gaaw fay ñu ñaanal ay doomam yàlla teg leen ci loxo loolu daal la doon jotoon solo mais yaatin maa idi ñoo bokk moom équipe nationale léegi mu def fukki at ak juróom ba muy nekk xale man maa ko njëkk a sélectionné équipe nationale dafa ak moom ñetti ba mu ñëw ci équipe A bi mu ne nekkam nag ci ñun nag nekk bu rafet la mu ne wane na ko ci terrain bi wane na ko yëpp ci biti mu ne tey jii boo limee benn boole ko ci mu nekk ñaar di ay idéem ci équipe nationale ci yaakaayam ci équipe nationale mais ndax def na équipe nationale olympique dem soob na yàlla tant que ñu ngi dund dinañ koy def ba keroog ñuy fekk bàyyi lañ te biñ bés bu ñu fi jógee yàlla na taxawoo ni duñu duñu ko digale ñu ngi di gërëm ñëpp dafa nekk loo xam ne mënuñu ko bañ a wax di sant nag suñu doom yi nga xam ne seeni bàyyi nañ tey seen lépp ñoo bokk ak ñoom bés mu mu métti lool soo waxee Idrissa Gana ak bokk footballeur yi nga xam ne ñoom la bokkal di football fii ci senegal ñu bokk Sénégal mun naa ne bu kenn teewoon rek doy na sëkk waaye presque ñëpp ñëw na ay xaritam ay àndandoom ay soppeem ñëpp ñëw nañu ànd ak moom ci tiis wi nga xam ne tey ci kawam la daal tiis wi nag jombul kenn am xaalis ak ñàkk am xaalis am dara jaag ñàkk am dara ku nekk muy man mii di wax ak keneen bu app bi jotee rek faw ñuy gis suñu borom lan la ñu fekk suñu neex suñu borom loolu daal ci tënk loolu lañ amoon di wax wasalaamualeykum wa rahmatullah Idrissa Gana Gueye. nee na Idrissa Gana Gueye. fi mu fi bàyyi fii muy mag tey. lii Cheikh Jeylaani Gaye waaw yaram bi moo sutante waaye ba mu ko déggee képp kuy ngeen woo na la njabootam ngi fii toog amul kenn ku fa def muy soxnaam ñëpp a ngi fi bi ñuy ñëw daf leen ne man dëj bi maa ko war a dëj loolu la wax sama nopp ma dégg donc bu may wax sama kàddu kon bu may wax sama kàddu moom laa waroon njëkkee ci moom laa waroon njëkkee maa ngi ciy jéggalu mbooloo Jeylaani Gaye Jeylaani Gaye def na li ko war ba def li ko war dañ koy ñaan yàlla pour yàlla gën a bàyyi ak rakam ji nag ci ginnaaw muy def taat bu daa bi mu ko waxee bi mu ko waxee bi mu waxee def bi ma waxee def ma ne as bu ko wax kenn bu def na ma as bu ko wax bu kenn sànq waxoo ko ma ko jëlee sànq waxoo ko jëy laal maa ngi wóor jëy laal ko sonn jox ma mu ne boobu di woo jëy laal li ma sonn jox ma waaye bu ko wax kenn sànq bu ko jëlee nañ fexe ba mu jot ko ba pare keneen doo ko jox moom li ñuy wax rakk topp mag mu ne li ñuy wax rakk topp mag ñoom ñu ngi ci ñoom ñu ngi ci yàlla ci yàlla yokk bàyyi yàlla ko yàlla gën a bàyyi bàyyi seen kanam ay rakk seen kanam

هل سقامي تسمع يقابل